que xam nga ne ñaari yoon ci àdduna la mës a dem ci fo moom yonent mu xam ne du cëram benn bi day sàmm mhm. bi muy sàmm ba ci yàgg am ay tëggu naar xawaare bu mu jàkkaar lool mhm. mu ni bu xar yee ñëwee ba ma teg leen fii takk leen damay daw seetaani mhm. avant xar yee ñëw yàlla roof ko nelaw bi muy yeewu fekk ne xolal tëgg maag la fa xewoon ak nit ñi dem nañu ba fàtte daa yeewu ci ay nelaw gisul sax luy niroog nit mu mel ne dara mosu fee xew mel ne dara mosu faa xew. Mhm. bi ci des voyage la juge commerce. Mhm. ànd ak Abdou Manaaf. Mhm. bàyyi Ali na Abi Talib à l'âge de 12 ans. bi ñu dugg Màkka. mu dégg tëgg yi. mu ne xaaral ma jaar fa ak sama gileem. bi muy tolloo Kaaba gi yàlla rof koy nelaw bi muy yeewu seen bundu kër la yeewoo. mu xam ni kon lii du cëram uh-huh. moo tax maa asa xattu mm-hmm. rabbahu musta mooy boroomam mm-hmm. déggoo alifan nuska wal ibadata wal wa wakat tiflan wa hakaza nujaba u ca kayfa tarxaa ruqiyakal anbiya mësta mm-hmm. jaar ci lu xale jaar mësta itam am jot wax naa la huit ans la ñàkk yaay ñàkk baay ñàkk maam ñu jël ko jox ko papay Ali ibn Abi Talib douze ans muy première sortiem bu mu dem bu mu dem Sham defi commerce Corinthians bi à l'âge de 12 ans commencé na liggéey. à de 12 ans la joxe dépense teg ci te booba amu fa bàyyi amul yaay. amul mag amul rab 12 ans la joxe dépense. te dafa ñëw ci Abdou Manaf bàyyi Aline. ñu mhm. ko papa man dama gis ni man ak yow bi ñu nekkee ba tey defoo dara benn activité. Mhm. mu ne ko mu Moustapha commerçant laa woon. Mhm. danga koo bàyyi mu ne ko walaay mënut a ñàkk ma ba ko. mu ne ko lu tax mu ne ko samaam. bi mu tollee ci sukuraat. ay doomam bari nañu. Abdou Kaabu. abdu manaaf zubayru talha umayya barata bayda atika arwaax abu lahab ak man ñun ñépp a ngi ci famille bi sa maam nekk ci sukuraat ñee nekk ay multimilliardaire abu lahab ñëw ni ko dénk ma sa sët bi mu ne ko mën naa la koo dénk waaye dangaa xamadi te bëgguma ko xamadi yor ko abu jëxali ni ko bàyyi dénk ma ko mun ko dangaa bari alal te nay te bëgguma ko nay tee njool màkk li ñuy bari bari mu tourné xool ma xam ne ni damaa njaboot te yoruma lu suukar màdd mu ni ma yow laa doyloo ci sama sët bi yaral ma ko ci ngor te comme amoo fi bàyyi amoo yaay damay bañ a tukki hmm. nga tumuranke sama ginnaaw hmm. mbaa nga rafle ci sama ginnaaw dëkk boo fa amul ndey amoo fa bàyyi boo xiifee sañoo songu nit naan damaa bëgg a lekk te nab bi borom kersa la du sigg hmm. mu ni ko ma ma ma suivre la moo ma gënal may defi commerce mu ni ko bàyyi dama bëgg nga nga takkaat say jaaj nañu àndaat man ak yow bàyyeewaatoo fii bàyyeekootee makka dem Cham fii xubbi yi ci douze ans xaa huit la ba deux muy dix sidda bi muy douze fii xubbi yi ci douze ans amuhu bàyyi taxam bay bàyyu àlliin xad raaxa gont na wala xad raaxa laxasaay na maahu ànd ak yonent bi ila saamin ñu jëm saam ci voyage boobu nag ca lañ daje ak benn labbe labbe bi ni leen kii yonent lay doon xad isra aba ilayhi raahibun nasturaahu wa yaqulu nabiyun jaa bil umami mu voyage yi voyage am boobu ci lay voyage ci lay voyage ci lay voyage ba mu amee vingt cinq ans daje xadija xadija joxaat ko ba ni mu see xadija amuloon jot alaaji jot baaxu ci góor. kon daawul toog di naan ataaya amul woon xarit benn xarit la musa am mooy Aboubacar Sadiq wax naa la ko. Mhm. mooy fi nu xaritoo ñoom ñaar ca voyage boobu la ñu xamante mooy 12 ans mooy 12 ans ya. Mhm. noonu la ko jàppoo di commerce de commerce ba ni amee xanaa xamoo ni saaga boo gis ci internet bi ku am jot a koy def. commentaire saaga. yëpp ñi am jot la. Mhm. seetlu ñi ci bureau yi gisoo leen ñi TikTok mukk di xasaateeg. di ñi ci bureau yi taluñu ko. ñi am liggéey taluñu ko mm-hmm. bamba ñi nga gis seetlul ñi nga gis ñëpp ñuy mm-hmm. ñu ñuy werante mm-hmm. ci facebook bi ah tiijaan laak murit laak ñi ci ëpp amuñu métier ñi te seen bitig lañu yoral seen bopp kenn kon da kenn kenn ko nu mu tudd kenn kenn kenn kenn kenn kenn conditionné wu leen bamba nit bu amee jot rek dugg ci lu ñàkk fayda yorante bi yàlla daf ko teel a xañ jot même doom doo ko yar ci ay duma da nga ko yar ci xañ ko jot jàngi wàcc defi cours de soir bu wàccee dina tal leneen lu dul fa wi nelaw yonent bi ci la ko yàlla yar moo tax daan na taxaw xool seetu mhm. alaaji suñ tërandoo moo rafet sallallahu alayhi wa sallam yonent bi bu jigéen jigéen dajeeg moom da ngay am keesa doo ko xool nag taar laa ilaha laa bu naaj bi tàngee boo dee tàppet boo yamee ci moom daw ay bëtam la nit àttanul bu naaj bi tàngee day mel ni ku ñu puudar mhm. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bëtam yamul ak benn bët ndaay bëtam toll boo dee tàppet laalax da ngay daw bu mu saana muñ koo mënti doon ci yaram bu ngeen dajee ci ruq bu xat mu jàll xajal la boo jàllee mu doog a jàll boo ne ko dañ maa yónni mu sëgg noppam tant que dégage woo sa gémmiñ du si gi sallallahu alayhi wa sallam ñu bari dañoo foogoon ne ndeysaan da ngay dégg benn firikat naan la bakken ba ni sulet déedéet amuloon bakken bu gudd bakken dafa yemoon taaju mais leer gi daan déparé ci jëbi di ñëw ci bakken bi alaaji Malik nee na bu sa bët gaawee ci ñàkk gis yonent bi da ngay foog ni bakken bee gudd waaye guddul leer gi la min nuuri irniinihi xad zanna nazirahu isa taajjana an xad xaasa min xikami yara bisalmaa nuurul aalamina kama ala diya in yara saddex wala taxi mi cheikh njol maaka bu courant coupé yow mi toog yaa koy yëg waaye du ko bàyyi xel ndax ni muy leer gisee bëccëg noonu lay lumineuse yee tax yow bu ngeen toogee courant coupé yaa naan ko àllaaji lamp yi fay na waaye du ko yëg parce que lumineuse yee tax yi ci bët yi bët yi leer rek lay gis bu tëddee bët yaay gëm xool bi di xool mësta taxawal mësta caaxaan moo tax bu ma gisee ñi ci tiktok bi jàppal àllaaji Malick gi jàppal sëriñ tubaa gi maa la gën sëriñ xanaa am na ñoo xamante ni bokkuñu ci benn tariixa hmm. li leen neex mooy xeex sëriñ si dañuy dugg di commentaire sol solu murit mbaa ñu sol solu tijaan hmm. Hmm. di commentaire te bokkuñu ci tariixa yi bu ko defee nga foog ni tijaan ngay xulool wala murit ngay xulool fekk yaa ngay xuloo koo xam ne sëriñ si rek la bañ wallaahi dëgg la mais ku bëgg sëriñ si ki nga bëgg boo ko bëggee rek bëgg ki ci des wallaahi dëgg man Tijaan laa mhm. damay dem Touba damay mhm. waxtaane Cheikhul Khadim damay waxtaane Baye Niass mhm. damay waxtaane Baye Laay damay waxtaane keneen xam nga lu des xam nga lu tax may def loolu bu ñaa laay wër <laughs> yow mal xiyaam tuyaaba doyu fa déedéet bu laa laaj maa joxe li lay jox nga ni sëñ Bamba dama yelwaan ci sa tuyaaba ji <laughs> waaw Baye Laay kaay <laughs> kii defal ma ci sama bool tuuti Baye Niass jàpp ci ñëwal ci sama bool tuuti njool maaka nag maa ngi ñëw ci yow pareegu ma loolu yëpp laa bëgg yow mal xiyaam sallallahu alayhi bool bi duun ma ànd ak sama njaboot dugg aljana léegi macha allah oustaz Mouhamed Mbaye yaakaar naa ñëpp ci euh, yonent yàlla Mouhamed léegi oustaz gàmmu gàmmu ndax it dañ ni yonent bi def ko mhm. lool loolu la yenn ci ñiy dingat gàmmu wax mhm. ni kon bidaa la mhm. léegi nga nga nga déggee kanam bidaa daal koo dégg mu ko ci wax daa soxor rek sallallahu alayhi bi bisu anniversaire. Mhm. kon biddaa la. Mhm. takk sa ay verre. Mhm. biddaa la. tiim caméra di wax. biddaa la. am téléphone. biddaa la. koor jot. nga ibbi frigo naan. biddaa la. Euh, taal kilim. biddaa la. tali biddaa la. bu fekkoon nit ñi dañuy bañ biddaa kon ñëpp dana war a wut ay mbaam. ak i gëlëm yonent mi mbaam la daan war. <laughs> mu mujiba daawati mhm. bu daan wuyu ji woote mhm. mamlukan buuri mhm. wa raakiban dafay war alximaara mbaam bu fekkee ni sunna yonent bi ngay roy yow ngay roy sunna yonent bi am troisième étage jàpp tijaan yi muridi xanaa xamoon ne bu doon sikkim bu gudday taxa doon ibaadu kon ba yëpp ay ibaadu lan <laughs> sikkee di waaw parce que ñoom ñëpp am ay sikkim dëgg la mais iñaan passé tour say magi dëkk bind am cofeel ci yonent bi way loo xalaat ci téere ñu bind ko nga bàyyi seen ay téere dem di euh, euh, gëm ñoo xamante ne boo demoon seen dëkk tey yow ñu xeeb la ndax sa der bu ñuul ñooñu siggil la ñoom ndax bu ñuul nga ni nga ni gàmm bi daal te ñu ëpp la xam-xam ragal yàlla gi ci cheikhul xadim ba mu julli ci géej gi mhm. mbaax gi ci Seydil Haaji Malick ba mu jaaree fi dem màkkatal mu karama mhm. Dakar Alexandre Siwis Jidda yéeg bato ñëw ni yonent bi yegsi naa dem Màkka joxe farataam dem Medinatu Munawwara mu ne xal li baabil ayi wal ayi wal huda mu xattu aminin waxi wa huwa rasul bàyyi jaar fii dugg biir Afrique tasaare ko maam bàyyi laay rëddal géej gi woote aji bu daa yàlla yi mag ñi kenn ku ne def nga ni loolu lépp ay bi daala yow loo fi def <coughs> xam wax ma ban karaama nga def wax ma benn karaama boo def bu dee alxuraan ñi ci daara yi la ko dàq mm-hmm. par force bu dee tafsir mënoo leen ci gis nga man damay wax du ma xas borom xam-xam mm. parce que al ulama warathatul anbiya yi mm. mais damay gis ni leen saa yi nga gis kenn ku ni wooy ibaadu mu dem yëddu benn tarixa xool mm. lu lu lu gànn mesere wax bëgg cee def waxtaan fekk gànn itteelu ko de ay vie lay wër parce que vidéo yi dan koy koy fay la bi ma xamee ni ñi ay vie la ñuy wër sonnatuma ci man imaam kenn du ma teree nelaw mhm. yonent bi laa bëgg jeex sallallahu alayhi wa sallam keneen ku bëgg yonent bi ma jàppale ci mais damay wax ne la yonent bi waxoon ni mhm. falaa tuzakku anfusakum wa huwa aalamu bi man ittaqaa mhm. bu kenn fëgg sa dënn ni ñun ñooru mbiri yàlla rek moo xam ki ko di di nga nga xam ne ibaadu la na doy loolu imaam ba yowmal xiyaam ki nga xam ne tijaan na doy loolu imaam ba yowmal xiyaam ki nga xam ne murit la na doy loolu imaam ba yowmal xiyaam yowmal xiyaam alaaji ñëwagul bu ko kenn atte waaw euh, euh, yowmal xiyaam euh, xam nga nu ma ko tuddee nu goloo xam boote doomam yàllaa ko wax de <laughs> nee na kenn du fa jariñ kenn mhm. xoolal yoon bi ngay jaar nga jaar fa dëgg la caméra bii Cheikh taalal ñu mhm. xamul tubaab bi ko defar nu mu tudd déedéet nga ngi ciy tedd mhm. di ci fayeeku wallaahi tubaab ba moytu sax ba mu ko defaree faatu na yàllaahu wallaahi dëgg la nañu am njort suñu diggante ak suñu borom man ku ma gis ngay julli suba tisbaar tàkkusaan timis gee jàpp naa ni yaa ma gën ba kar yow mal xiyaam ma xool nu yàlla jëflante ak yow macha allah oustaz yaakaar naa gàmmu gàmmu gàmmu léegi kon gàmmu dagan na ci fa la sax pour man ndax nettali dégg nañu ci seen jàng ngeen yonent bi moo njëkkal a gàmmul boppam. yonent bi dafa daan woor. Mhm. bu masaan a jot. Mhm. saxaaba yi. Mhm. dañ daan daje. Muzaynatu. mu daan dajale saxaaba yi ñu toog. ñuy def question réponse ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di waxtaane mbaaxam mais yonente bi bu ñu ko jàngale wuloon est ce que mag ñi dinañu xam siira déedéet est ce que xam nga ñun suñu cofeel ci yonente bi yonente bi defu ko man sama cofeel ci yonente bi yonente bi defu ko Seydil Hadj Malick moo ko def wallaahi dëgg la parce que moo ma jàngal yonente bi nit du namm ku ma xamul mm-hmm. ma dégg baaleem dinaa la musa nettali histoire boobu parce que dafa gudd te pourtant waa ji day dox di dem dégg ñaar ñuy waxtaane yonente bi xamu ko mu topp ci di déglu ñuy waxtaane yonente bi mu topp leen topp leen ba ci yàgg muy jooy di leen topp ba caag amatul sago di jooy ba caag mu yuuxu gaa yi daw geesu lu xew mu leen dara dama dégg ngeen di waxtaane ku ma xamul mosuma koo gis <laughs> ma dégg tolérance bi ngeen di wax ci moom ma dégg mbaax bi ngeen di wax ci moom waa ji dagg yoonam di war yonent bi ay weer jàpp nañ ko jaam di ko jaay di ko jaay di ko jaay ba jaay ko frontière u Màkka moom waa jooju ngir rek mu gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waa jooju dem na bay bàyyil sëriñam mm-hmm. tàndarma mm-hmm. di witti tàndarma mm-hmm. am doomu ki ko yilif ñëw ci dëkk bi daw ñëw ni papa ay waay papa waa jaa nga ca kaw garabu tàndarma ga papa tey laa gis waa rafet papa waa bu muuñee sa xol day sedd nit ñi dañuy rang di ko nuyu ndax loxo bu nooy wala xariiru wala dibaaji aliyanu min kafi rasuli te wili zendi la tasimi papa waa ji bu la xoolee sa xol day sedd bët yi per bu ñuul bi day daw nday joor ak càmm ñamul benn place bu ne la wa aleykum salaam mu ne ko num tudd mu ne ko Mouhamed waa ji ca kaw la départ yi ni dàtt ko xawee ko parce que njool doon wër tur bi la doon xaar parce que bi xale bi wax dafa def tekk di déglu mais bi mu nekk xamee la tudd dafa bàyyi ko ci kaw garab gi daanu rek daw dugg marché dina ni jàkk-jàkkaaloog yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gis nga nit léeg-léeg da nga koy gis rek bëgg ko euh, sans dara di ko xool di ko xool di ko xool barangoo ñëm tuuru mu ni ñaar ñooñu ba ñuy wax déggoon naa ñu naan waa ji du lekk sarax addiya lay lekk mu daw dem seen kër jël ci tàndarma gi yonent bi waxtaan mu ñëw ni ko maa la ko sarax toog di ko xool njool maa ko jël tàndarma ji jox ñoom laa ñu séddoo ñu lekk mhm. parce que xam na ne du lekk sarax mhm. mu toogaat ba ci yàgg mu daw dellu ak diir mu daw dellu si indi tàndarma ni ko maa la ko jox hadiya nabi dafa bëggoon tàndarma mu muñ seex ñu ko yow laay wër jàpp nañ ma jaam fu ne jaar naa fa lenn rek moo ma dese sama patron moom laa nekkal mhm. xaaral ma daw gis ko ñëw ni patron dama lay ñaan nga goreel ma gis naa waa ji dama bëgg di ko liggéeyal mu ne ko non munu ma laa goreel munu ma laa jaayi ma laa def dara mu daw dellu si ni njool maa wa ashhadu anna muhammadan rasulullah xol bi yaay borom waaye jëmm ji am na ko ko yëlif nabi ne ko demal nga wax ak moom mu wax ñaan njekk mu bañ aboubacar sadiq ni ko jaay ma ko waa ji bañ ba ci àgg waa ji ni ko boo bëggee ma jaay la ko danga may wutal ñetti euh, ñetti téeméeri tàndarma yooyu jëm ba tey mu ñor tey ñu lekk ci tey ñetti kilo wurus moom laa koy jaayee waa ji jooy ma jar bëgg naa ànd ak yow te waa ji ñetti téeméeri tàndarma lay laaj yuñ jëm ba tey mu ñor tey ñu lekk ci tey ak ñetti ak ñetti kilo urus te xam naa ne amuñu ko nabi ni dajale leen ma ay xotti tàndarma ku ko am bi bilaal jóg ñuy wërantu di wërantu ba am ñetti téeméeri xooxu tàndarma njol màkk ne aboubacar a ngay topp sama ginnaaw omar toppal sama ginnaaw ousmane topp ci alin dee leen gas bàyyi leen may tari yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci mbaaxam benn ga xooxu tàndarma bu mu téye xool yëngal yëngal yëngal xool asamaan xool suuf ni rabbi laa tazarni fardan wa anta xayru waarisiin dóor bu cinquante yële ñuy gas cinquante yi ñu ngi ñor ma ngay wadd njol màkk ni ko xanaa lii nga waxoon mu ne ko waxoon naa la ñetti kilo yu bu ko amee ma ma ma ma ma libéré ko ñuy wër di wër ba amuñu lu tolloog cof nabi di ko indil foo peese waa ji ree nga xam ne loxoom ya barke moo ci amoon bu defee ni loxo mi ndeysaan def nii di ëpp bu tegee mu ëpp kilo. ñuy compte di compte jël maa ko ni ko ndax lii la mu ni lii la mu ni bilaal li ci des dellool ma ko borom ne ko ndax manqué na terale ko waa ji waa ji noonu la toppee njool màkk kooku kookuy tëkkaleel ci àdduna nit bu ko xool mën naa ñàkk julli mën naa ñàkk def lu ne waaye bu soppee yonent bi lépp fekk si waat ko wallaahi dëgg la nabi nee na cheikh hmm. maxtulita xubbi fii qalbi ahadin ilaa wa xarama laahu jasaduhu min an naar yonent bi nee na bépp xol boo ibbi lu toll ni bépp suuf ca fayal am ca bu jëm ci man hmm. yaram bu ëmb xol boobu araam na safara sallallahu alayhi wa sallam koo gis ne nitu safara la mel ni yaa moom nit ñi waaye lu tax yow koo dajal dooni kii nitu 100 mètres la du ko dajal ni bandi la waaye déedéet ko bokkul yoon rek yaa ko gën yoon déedéet jàppal ni amal njortu bu rafet te bëgg yonent bi hmm. te woote gis nga bamb bokk na ci danger xool nit ni ko góor jigéen ka bokk na ci danger xool nit ni ko faramason ka hmm. yàlla nañu bàyyi yàlla ak jaamam yi te nu waaraate te bañ kenn bañ a gaaruwaale kenn hmm. bu ma sañoon ñëpp lu baax la ñuy wax waaraateel gaa bul gaaruwaale kenn neel yàlla nee na góor jigéen ko ci sax safara la jëm waaye bul ni ku ko def nangam neel franc-maçon ku ci sax loo defal yàlla bëggul boo dee safara nga jëm hmm. waareel boo paree nag après yàlla nag moo walaate yàlla moom mooy def lu ko neex ci jaamam ñi waxal yàlla waaw yonent bi nee na yàlla nee na yonent bi waareel mais moom moo aljana caabi ji maa ko moom maay xool ku ma neex te sax yow mal xiyama yow laa koy jox wa fil waraa'i alfun min al malaa'ikati ka annahum lu'lu'un maknuun euh, mafatixul janna bi yaddi abarul abraari atqal atqiyaayi xiiratul axyaari sayidu raakiina sayidu saajidina <laughs> oustaz <laughs> oustaz Ousmane Mbaye macha allah yamul dongo ci waane mais oustaz dafa aay <laughs> wallahi dëgg la spécialiste la en sallallahu en en Muhammad loolu lañ ko mën a waxee oustaz spécialiste nga sur